maami Aliou dem mbokk internet Farokh TV ñu ngi am mbégte bu baax ci kon kontante teewlu bi ngeen ñu teewlu ci seen seen bu mag bii di Farokh TV tey nag ñu ngi toll sëtu yonent bi kooku mooy kan Serigne Moustapha Aydara ibnu Serigne Cheikh Tidiane Aydara ca fële sa Farafeñe ñu am benn bés bu màgg bu tedd bu ñuy waajal le 25 décembre incha allahu rabbi fële ca Farafeñe dinañ ci ñëw insha allah loolu mooy sababu waxtaan bi di ci woo àdduna yëpp ñu bàyyi ko xel bés boobu insha allah rabbi Serigne Moustapha Aydara moom lañ toogal nii nekk surtout yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu am mbégte bu baax ànd ak moom ci jataay bi di xeltu leeru yonent bi ci moom kooku mooy kan sëriñ Mouhamadul Moustapha Aydara ibnu Cheikh Tidiane Aydara fële ca Farafeñ sëriñ Mouhamadul Moustapha seen bi mag bi di Faraf TV ñoo am mbégte ak kontaan seet si la tey fii ci sa wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa taala wa barakaatuhu di ko wax mbokki Faraf TV yëpp di wax it ñëpp asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu waxkat ba dafa waxoon. suñu boroom subhaanahu wa taala ne ida huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha waaye it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man badaa bi kalaami qabla salaam fala tujibuhu nit ki bu dooree ci kàddoom te nuyoowut nee na bu leen ko fay te bëgg nañ nag li ñuy wax nit ñi dégg ko tabaarakallahu woote wi ñuy woote nit ñi wuyu si ñu ndax wuyu si bi mooy fay gi ñu ngi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin di julli ci sayduna muhammad sallallahu mi nga xamante ne mooy faatihi alqaatimi naasiri alxaqi bilxaqi walhadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa di wax ñu ngi yeesal suñu kóllëre ci suñu sëriñ mawlaaya cheikhuna tijaani chérif radiallahu taala anhu borom katmiya borom xatmiya Euh, tabaarakallaahu di gën a ci lim ñu jox. Mm-hmm. muy salaatul fatih ak mm-hmm. wértam mm-hmm. wa waaye di wax ni ñu ngi ñaan ngër ngërmande yàlla wàcceekoo ci suñu wasile bi nga xamante ne. mooy suñu bunt ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di suñu bunt ci cheikhuna tijaan yi. di turandoom di seenu sët. muy mawlaaya chérif Cheikh Ahmad Tijaan yi. chérif radiyallahu taala anhu ibnu saad Euh, nga xamante ne tabaarakallahu tey mbiram. mooy sabab yi dajee gi ñu dajee fii. pour waxtaanee ko loolu moo nekkoon suñu nuyoo. ci mbooloo mi. ndax kulli shay'in sababun. mbir mu nekk am na sabab. kon ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu beneen yoon. sëñ am nañu mbégte waajal lu am solo chaque 25 décembre fële ca Farafeñe lan ngeen di waajal. siyaare bi ngeen di waajal kan kañ ko tàmbali ak lan mooy sababu woote boobu. tabaarakallaahu dajale nga laaj yu bari jox ma ko tey. Mm-hmm. mooy ku ñuy waajal. Mm-hmm. ak ziyaare la vingt cinq décembre bi lu koy waral. Mm-hmm. ak it fu ñu koy defee. waaw mu ngoog tabaarakallaahu yal na yàlla tekki suñu làmmiñ. ba li ñuy wax ànd ak fasaaxatul kalaam. ba nit ñi mën koo jëriñoo. Euh, ziyaare la vingt cinq décembre. dafa am sabab wax naa la léegi mbir mu ne am na sabab. yàlla moo rocc ruuxu. suñu góor googu di wax Mawlaaya Cheikh Cheikh Ahmad Tijaani yi yéegi ko mu jëm rafiqul ala ca la vingt cinq décembre la woon tax nag tabaarakallahu bër bu set ñu ngi koy ñaanal yàlla saa yu ñu jullee ñu ngi koy ñaanal saa yu suñu xel dajee ko ñu ngi koy ñaanal njëgal ak yërmande ak it yàlla yokk leeram ca fa mu tëdd waaye nag mm-hmm. Euh, dañuy wax ne ku la lebal ngont fay ko bés dafa jaadu. Mm. Euh, te yonent bi waxoon ne nit ki bu dee lépp may dagg ba mu des ñett. Mm. bokk na ci ñett yooyu. Mm. doom ju baax ju lay ñaanal. njaboot gi daje ak i taalibe yi. Mhm. ak i soppe yi ak xarit yi ak am di jàmm yi. Mhm. di fàttaliku Mawlaay Cheikh Chamara Tijaan yi. Mhm. ci la vingt cinq décembre boobu. la vingt cinq décembre boobu. mooy bés bi nga xamante ne. Euh, sëtu yonent yàlla Muhammad bii sallallahu sallam ci la dëdd woon jamono. ñu denc ko it ci la vingt cinq décembre. foofu ca raw doom ba mu tëdd. mu mooy sa wayjur waaw loolu yàlla dogal na ko mooy suñu wayjur. di suñu sëriñ. ndax jaay nañ njureel ga jëndee ko taalibe. waxoon ko aslamtu nafsi mm-hmm. mu may ñu wirdu salaatul fatiha mm-hmm. kooku nag mm-hmm. mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ci waxtaan wii sax bokkoon na ci ubbee ga ma waroon a ubbee ci kàddu ki nga xamante ne ndigalam la jot di def lii ak ndigali kim teg ndigal yi ci loxoom muy suñu xalifa Mawlaaya Chérif Cheikh Saadul Abi ibnu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu muy nit ku baax. Mm-hmm. di xalifa di kuutali baayam. Mm-hmm. ci gannaaw njabootam. Mm-hmm. ndax loolu waxi baayam la woon. tabaarakallahu tey nag. bi ma yëgee lii. ci fan yi ci gannaaw. keroog fi ma ko yëgee mu ngi toog ma wax ko ko. mu may ñu ci ndigal. pour ñu def ko. ñu koy ziar. di ci jaar di ziare mboolem njabooti Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani. di leen wàccee seen wàccuwaay. kenn ku ne maqaama ak garaat bi ko yàlla jox ak cër jox nañ ko ko wa aatu kulla di xaqin xaqahu mm-hmm. mm-hmm. kon nag ñu ngi leen koy jox di leen ko nuyoo mm-hmm. waaye ci kaw loolu di nuyu ki nga xamante ne moom la xalifa bi doxale diggante njaboot gi ak moom diggante taalibe yi ak moom diggante njaboot gi ak taalibe yi muy suñu sëriñ di suñu buntu لسلاح الدين لمولاي الشريف الشيخ محمد الحطاب ابن مولاي الشيخ شيخ محمد التيجاني ميغا خامني موي سونو تير مان مي دي وقتان موي سامو تير تي نجابوت جي داخ وقت با دا فا واخوني تاغي ووني امنا جابال ديو ني جابكو موم تبارك الله داخ موم لا Euh, euh, yàlla cërale mhm. tabaarakallah ni ko xalifa bi waxee mhm. jamono ji nee ne ko chérif xataa yow moom chérif moustapha yow rek yaa ko attan mhm. alhamdulilah ñu nangu it loolu ñu ngi koy ziyaar di ko xaasal nuyoo ak ziyaar fa tabaarakallahu waaye ci kaw loolu ñu ngi nuyu ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ci njaboot Cheikh Tidiane gi yëpp la vingt cinq décembre ñu ngi koy amalee nag Farafeñi ca frontière ba mooy Farafeñi ci Gambie ca Gambie mu ngi wàccoon liggéey la 25 décembre 2013 2013 2013 nag mm-hmm. bi bés bi dellusee mm-hmm. ñu ñaanal ko mm-hmm. saraxal ko tabaarakallaahu dañu di ko ñaanal di joxe dog ci foo xam ne njabootam ak fa ak fu mu joxewoon woon ndigal ci barab ya ñu daan def lu fu waay ne rek ñu di ko fàttaliku di ko ñaanal di ko ñaanal ba bés bi dellu si ñu ne nañu dajee fàttaliku góor yàlla boobu waxtaane ay jaar jaaram ndax dagan na niti alquran la woon ahlul eh, mu te niti alquran la woon. Mhm. te niti alquran. Mhm. mooy niti yàlla. dëgg yaa ngi dégg. Mhm. ñoom ñooy xaadimul quran yi nga xamante ne ñoom liggéeyal alquran rek. moo doon dundam. yàlla dogal nag ci bis boobu. danañ jàng ay kaamil. loolu quran. le vingt cinq novembre. la ñuy ubbi alquran ji. commencé di ko jàng. maanaam kon le 25 novembre bi ci ngeen di ubbi kaamil. alquran yi ba keroog ñuy egg. 25 décembre bi keroog cinq ñu nee 25 ñu tëjee kaamil yi ñaanal mbooloo mi. Mhm. dal yeewee ko. Mhm. waaye ci biir loolu. Mhm. ñaan yi danañ daw moo xam lixlaas yi la mboolem lu waay man salaatul fatix yi. yaa ngi dégg. lépp lu waay man ci ñaan istigfaar yeeg yooyu. lépp ñu boole ko dajale ko. jox ko. جاموكو يالا ديف كو هدي يونت صلى الله عليه وسلم يينه يول بي مولاي الشريف الشيخ احمد التيجاني ميغا خامني موم لا نيي فاتليكو وقتاني نك اي جيكوم اك اي باخ باخام اك و مامام اك و ترون دوم شيخ التيجاني شيخ عبد الله تعالى مانام مانام تي لولو صاح نين نانا لي ريومي نده وا كير يينت يالا محمد نيك في كو سوف رواتينا يين نين جوك نين نين نيك ديريكت تي سوتو يينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم كون جوتنا àdduna bàyyi leen xel ngeen nemmeeku di ñaanal doomi aadama yi wala di ñaanal sax jullitu yàlla yi wala ku dul jullitu yàlla sax maanaam pour réew mi am jàmm am dal lépp ci keroog bis boobu mais sëriñ Mahamadul Moustapha bis boobu yéen njaboot gi yéen a koy taxawee fële ca Farafeñe le vingt cinq décembre mm-hmm. maanaam loolu bis la boo xamante ni àdduna ñëpp lañ ciy woo sëriñ Mouhamadul Moustapha mu ngi ciy woo adduna ñëpp te xam naa dina ci ñëw mhm. képp ku mu war a woo insha allahu rabbi dana la wala képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah nga xam ne boo déggee kàddoom nga xam ne mooy sa woote ndax munul buntu kër gu nekk mu taxaw fa waaye mun na toog ci média ñëpp déglu ko te seen seen ba mag bi di Alpha Rap bi ñëpp koy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew mais Cheikh Mouhamadul Moustapha bés boobu maanaam yan xeetu ñaan ngeen nga xamante ni moom ngeen ciy digle taalib yi di ko def alhamdulilah am na la waxoon ma dellu si si tuuti. Mm-hmm. njëkk ñuy dugg foofu. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. muy. njaboot gi ñoo koy def dëgg la. ndax olof yi dañ ne. ndimbal da cay fekk loxol boroom. yonentu wax salaa salaam ne al aqrabu awlaa ki gën a jege. moo gën a yay. nit ñi bu ñuy ñëw di la dimbale si. nañ la fekk ca tool bañ lay dimbalee. moo tax nag danañ door. mbir yi ca la vingt la vingt cinq novembre. Mm, novembre. Mm. bu ko dooree la vingt cinq novembre. Mm. ñëpp yëg nañ loolu moom aadatan li ñu xam nañ ko. kaamil yi door. comme ni ñaan yi dooree woon diggante daaw ba ren. waaye nag boobu dinañ door kaamil yi daara alquran yi tasaaroo ci biir gox yi. ñoom it tabaarakallaahu di ci beral nuyoo sax. waa Sabax Njaayeen tabaarakallaahu ak waa Daaru Ridwaan ci kaamilu quran yi waaye di ci beral nuyoo xaadimul quran bi. muy oustaz alxaaji Omar Lo mi nga xam ne moo doon imaam yi sëriñ bi di Chérif Cheikh Ahmad Tidiane mii nga wax léegi ne sët yonent la xaqan loolu dëgg la mag ñi dëggal ko ci boor yëpp eh, boo góor gi nga xam moom lañ tuddee télé bi dafa amoon taalibe bu ñuy wax eh, sëñ Daara Omar fay mm-hmm. sëñ Daara Omar fay bi ñu ko joxee Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane fekk mu ngi وات القران بو نك با توبات يغ تي حالات على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كرو لا غو بايام وات ليغي غودي غوكو ني جوخ سين دار عمر فاي سين دار عمر فاي يوبكو بي مي دم نك جار سيت شيخ سيدي حاج عمر ابن علي ندور رضي الله تعالى عنه مو زيار كو سي سيدي عمر داو دي خول غور دي خول شريف دي خول با تي ياغ نكو عمر mu ne ko naa mu ne ko ci toogaayam bu jekk ba mm-hmm. mu ne ko muy jàpp loxo bi di dóor ci tànk bi rek mm-hmm. tabaarakallaahu mm-hmm. di saqar mi yàlla rek moom góor gu sell googu góor gu yiw gu yéeme googu nga xamante ne tabaarakallaahu euh, gindee nañu bare bare bare ci yàlla ku ci mel ni Seex Sidi Haaji euh, ku mel ni ki Baay Abdou Salaam Guèye Gudéem ak ñeneen sëñ Mor Seck ak ñu bare bare bare mu dal di wax ne ko kii dee benn gu nekk sërif la buñ ma jox Omar mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko sëñ Daara Omar Faye la sëñ Daara Omar Cheikh Sidi Ahmad di waxal. mu ne ko waaw waaw boo demee. de koy jàngaloo waaye bul ko liggéeyloo. waaw mu ne ko soo demee. kii maamam fa baax mu xacc góor gi shérif. teg ko ci kawam mu ngi am fukki at ak benn. muy raay bopp bi mu ne ko boo demee. mu ne ko waaw mu ne ko dee koy jàngaloo. waaye bul ko liggéeyloo. mu ne ko Omar mu ne ko waaw. mu ne mu ne ko dee koy jàngaloo waaye bul ko duur mu ne ko dee koy jàngaloo mm-hmm. waaye bul ko dóor mm-hmm. mu ne ko Omar mm-hmm. mu ne ko naam mu ne ko labbayka mu ne ko kii boo demee dee koy ñaanloo waaye bul ko di liggéeyloo kii léegi leen maamam fa baax sang ak bindeef yi sa sallam moo da maamam cay Cheikh Siraj Omar mu daal di wax loolu kooku nag doomi Cheikh Saad bu la Cheikh na Cheikh Saad bu mu ngi tëdd dëkk bi ñuy wax bon naa moom boo demee ndeysaan yàlla defal na ko kéemaan bu rëy da gis guddi gi nii armeelam day leer ba nga foog ne dañ fa taal dara nooy gën a jege doo boo yegee doo gisati leer waaw mooy Cheikh Sidi mooy Cheikh na Cheikh Saad bu mm-hmm. Cheikh na Cheikh Saad bu boobu mm-hmm. Cheikh Sidil Xayri moo ko jur mm-hmm. Cheikh Sidil Xayri Cheikh Abdou Daim ku ñiti bi wulaadu Shibaa yi moo ko jur kon Chérif mii ngay laajte mu ngi bokk ci famille bu ñuy wax wulaadu Shibaa yi moom foofu la bokk tabaarakallaahu yàlla dogal nag shérif la ñee la tëdd. Euh, ci kaw loolu. daañ ko nemmeeku ñaan. ci bés boobu. yaa ngi wax yi ci gën. bokk na ca la ca gën. ñu di ko ko defal mooy la mu daan liggéey. daan ko jàng nga xamante ne daf daan jàng jàngi ni Seydina Aliin karamallaahu wajhahu ni mu daan jàngee alquran. nga xam ajjuma lay wàccee dooraat ajjuma. ajjuma bu jeexalee kaamil bi. Mhm. jàng xatmul quraan bi ni ñu ne amin ba pare. keroog mhm. laay dooraat jëmalewaat ajjuma. Mhm. moom noonu la daan jàngee ak quraan. kon nag kooku. jàngal ko alquran farat la. ndax dal nako jàng. alquran jàngal ko ko du jàng. du liggey jëm ci alquran. ko lolou kay moy musiba. way jàngal ko ki jàng. ko alquran du ko rëbb. kon dañu fa jàng alquran. dañu fa wax istighfar astaghfirullah yu bari. ndax istaghfiru rabbakum innahum kana ghaffara. yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anharan malakum la tarjuna lillahi qara kon dañu ko fa dañu julli ci yent yàlla Muhammad lu bari. ndax lan daf daan julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëtam la daan na julli ci yonent bi man salla alayhi salaatan waahidatan sallallahu alayhi biha ashra yaa ngi dégg ku julli ci yonent bi benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon. Mm-hmm. demet noonu ba muy fi muy waxee naan mm-hmm. euh, ku julli ci man junne yu man. Mm-hmm. junne yoon man salla alayhi alfa alfa mi at. ku julli ci man junne yoon. raxamat kat fukkati fii ala babil janna sama mbagg ak mbaggam ñooy buur tàbbee biir arjana. maanaam ma tënk wax ji nit ñi danañ xam ne ma bëgg wax. waaw ngoog danañ julli ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ndax. Euh, mooy maamam daañu jàng ay istigfaar daañu berndeel ay gan waxtu julli bu jotee daañu arrêté lépp lu ñuy def julli ndax mooy farata azamu ibadat baada shahadataani mooy asalaat di gën ci jaamu yàlla gannaaw wax baati seede bi rek mu ne mooy julli daañu fa jàng ay lixlaas daañu jàng ay suratu a suratu mulki suratu yaasin yu bari yoo xam ne bokkul sax alquran yi ñuy wasal nga xamante ne dana doon ay téeméeri téeméeri téeméer jëm kaw waxuma loolu waaw yooyu yëpp dinañ ko fa def ci ay ñaan lu ci waaye man rek foo yëgee ne vingt cinq novembre jot na rek na nga yëg ne keroog njabooti Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan ci njiitali xalifa bi ak ci ndimbal taxawaayam ka mu teg ci boppi njaboot bi muy silaaxu diin shérif Cheikh Mahamadul Xataab dañu ubbi keroog yëf yi daal di ko tabaarakallah bés boobu ndax maanaam programme buy fanaan wala day yend ba ngoon rek mu tas waaw alhamdulilah maa ngi doon ñëw foofu doon xaar ci sa laaj programme bi nii lay tëddee bu ñu xëyee suba teel huit mboolem njaboot gi kenn ku ne ci kër gi nga ne wala ci fi nga ne. Mhm. wala ci dal yi fi gan yi ne. Mhm. ndax gan yi dañ fanaan si. Mhm. mboolem fu ci gan ne rek ne decembre décembre cinq decembre jot na. ñëpp dañu ñëw ci kër xalifa bi buntu kër xalifa bi muy buntu kër sëriñ bi. zikr tudd yàlla. daayira yeeg. ñu yor sécurité yeeg ñëpp. ci foofu nag la nag. mbooloo mi di déparé ànd ak xalifa bi delloo jaam yàlla yi ci yàlla waar leen wax ak ñoom xamal leen ni du mbumbaay bu ñu tax a jóg du fo waaye kenn ku ne ci ñun fàttaliku dee ne dina jaar si si yow comme nu mu jaaree tey ci shérif Cheikh Tidiane al baa baabun waaye nag wa kullu naasi daqilahum dee daal buntu la ñépp a ci biir néeg bi ku ne di nga jaar génn ku mën a doon mu fàttali li ñu yàlla waar leen waxtaan ak ñoom suñu noppee nag ñu dellu sa kër ga bu ñuy egg nag ca kër ga fofu njaboti chef Ahmad gi ak gan ñi ak muqaddam yi ak talibe yi ak soppe yi ñépp ñu ñëw nañ wàcc ca bash ba fekk fa njabot gi nga xamanteni ñoo baye ko sabax ñoo ko daru ridwan ñoo ko ci yeneen kër sëriñ si ko yit ci qadimul quran bima la doon wax legi muy sëñ daru oustaz Omar Lo ñëpp tok fofu hit ñu dooraat fa njàngum kamel bo xamne ne bi dina jël jukkeeg njaboot gi yëpp. ñu jàng. xalifa bi nag suñ jàngee ba nga xamante ne waxtu ndékki yi jot na. moom nag dana jóge foofu ànd ak yenn ci njaboot gi. kenn ku ne dem sa dal. ñu dal nag dem ca. mu dem ca kër ga. tàmbale roswaal daayira yi. ak dawaayir yi. ak taalibe yi. ak muqaddam yi ñëw. ci ci bés boobu. suñ ko defee su ko defee. ndékki yi nga xamante ne jàngkati alquraan yi ñu fa. waaw ak suma mbokki pësi pësi yi tabaarakallaahu mm-hmm. ak sise sise yeeg njóobe nii mm-hmm. ñu indi leen nag ndékki yi si mm-hmm. chamatian nag ku yéeme la woon moom daawu terale nit lu mu lekk moom li muy lekk rek lay jox nit ñi joxe xewe yi benn day dëppook jamono bu nit ñi xewloo tabaarakallaahu naan yu sedd yéeg yooyu ñu continuer waat njàngum alquran ji ba su waxtu julli tisbaar jotee ñu arrêté dal di julli tisbaar suñ jullee tisbaar ba noppi dal di nag tabaarakallaahu da di xewloo mm-hmm. suñu xewloo mm-hmm. dangay gis ne diggante tisbaar mm-hmm. ak tàkkusaan lu jege la soo fi xewloo laaj na nopp lu tuuti mag ñi yeesal njàpp jógaat ci toogaay yi defaruwaat yaa ngi dégg ñu defaraat bâche bi suñu jullee cinq heures nag xalifa bi ak ay rakkam yëpp ak seeni gan ñi ak mbooleem kër sëriñ si ñëw danañ ànd tabaarakallaahu ñëw ci baas bi su ñëwee ci baas bi diggante gannaaw tàkkusaan foofu ñu jox jàngkat yi. Mm-hmm. ñu jàng. Mm-hmm. zikarkat yi ñu zikar tudd yàlla. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ciy nuyu. tabaarakallah mboolem tuddkat yàlla yi. zikarkat yi ci barab ba. bu ñu zikaree ba julli timis ba noppi. ñu jox mag ñi. kër diine yi fa teew. kër gune daañ am ñu leen yóbbaale géew. ci njaboot gañu fa yebal. bu ñu daanalee. incha allahu taala. xalifa bi daal di waxtaan. ak mbooloo mi ñu jàng xatmu bi. ci. لمن يسوني ويجور شيخ سيدي أبو بكرين ابن مولاي شيخ سيدي حج سرين تبارك الله أن جابت على حج سرين كيف تأو يدف أنت بارنتز نيوكو نحكو كوني يخ مولاي شيخ سيدي حج سرين دي تالي ببرم دارو سلام مونك شرين شريف شهمد تجاني دي طريقة بي دي طريقة تجاني nga xamante ni njaboot gi yëpp daañu fa teew. Mhm. loolu nag suñ ko defee. Mhm. ba waxtu wi xaw a guddi. Mhm. ci la ñuy yeewi mbooloo mi. ñaanal leen. joxanteeg ñoom rendez-vous. ba déwén allah. ci kaw kàddu xalife bi ñaan safoor yi ñëw. ñu daw ndànk. yegg si si jàmm. yoon nañ. yoon yi yu ci ayibu. ñu def ndànk-ndànk rek ba yegg bu ñuy dellu it ñu bañ a ñu indi. ñu taaxeelu leen bopp. programme bi tas incha allah. Mm-hmm. ñu dellu ci ñiy dellu. Mm-hmm. ñiy fanaani tabaarakallah ñu ànd ak ñoom fanaan. Mm-hmm. ci jàmm ak salaam ak mbégte. sëñ Mouhamadou Moustapha Haydara ñan ngay woo ci bés bi nga jaaree fa rek te jaale nga woo ñi nga bëgg a woo ñëpp nga xamal leen ne leen le 25 novembre incha allah ci la ñuy ubbi kaamil mais la 25 décembre mooy bés bi. alhamdulilah. ñu ngi woo këru. diine ji. waaw. dooree ci njabootu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa نقدموا قريش ولا تقدموهم جيتال لين وا كريونتي بي واي بو لين لين نانغو جيتو كون نيغي وو شريف ييب تبارك الله دي تي جيتال وا كر شيخنا شيخ المحفو تا كازاماس دي لين وو نيوم نييب دي لين خاصال ني لين شريف شمت تيجاني سين شريف احمد تيجاني لا دي وو كر سيرين ييب waaye tabaarakallah di ci jiital nag ñi nga xamante ne ñoo doon buntam ci tariqa bi muy kër Mawlaaya Cheikh Sidi Hadji Sëriñ di ci jiital xalifaam ba di Cheikh Mahamadul Habib di suñu sëriñ di suñu lépp tabaarakallahu ak Cheikh Mahamadul Amin mi nga xamante ne mooy Aminul Anwar mooy imaam ratib ba moom la ñu dénk moom la sëriñ bi teg lépp ci loxoom moo taxawee Mawlaaya Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane ñu ngi koy woo woo Seydi Ousmane mm-hmm. Zeyno Reyni mm-hmm. Seydi Mouhamadul Mansour mm-hmm. euh, di woo Serigne Babacar mi nga xam ne genn wàll suñu góor gi la comme ni ko suñu sëriñ si Mouhamadul Xataab di ko ko ñaanalee silaaxu diin di ko wax naan ko maqaama Seex Sidi Haaji sëriñ yal na la ko yàlla may ñu ngi ko koy ñaanal di woo nag suñu sëriñ bi nga xamante ne mooy suñu ustaaz muy Cheikh Ahmad Tijani ibnu Mawlaaya Seex Sidi Haaji sëriñ nga xamante tabaarakallaahu ñun génne ne njàng ci loxoom di ko woo ci bés bi ñooy tàmbali waaye mbir mi waaye di woo Farokh TV di ko dooree ci xalifa ba Mahamadul Bachir bachar يا ابن محمد الشيخ سيد حاج عمر نداو نيغي كوي نيانال يان يالا غودال فنام تامي كو وير دي و نجابوت جي ييب واي دي سي خاصال كيغا خامني تبارك الله موي ركام دي امام با دي شيخ محمود الحبيب ak mbollem njabot cheikh sidi ahmed mandaw mm-hmm. gi mm-hmm. way di berel ki nga xamne mm-hmm. euh, bi bes bi doore batay gisuñ tardement am cheikh mahamoudou mustapha ibnu Cheikh Mahamadul Bachir. Mm-hmm. ak mboolem ñu fa ne ak suñu goro Cheikh Mahamadou euh, Cheikh Ahmad Tidiane yi dem. Mm-hmm. ak mbooleem ñu fa nekk ñiy ñëw ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di leen ziar di leen woo si bés bi. di woo waa kër sëñ Mot sekk kër Kadim Jama. di woo. Euh, waa Sabax Njaayeen ñi nga xam ne. di Hadj Ousmane suñu maam jooju. baax lool. la yonent bi feeñu. ànd ak Cheikhuna Tidiane yi ak baayam. ne ko nag ren sa billet màkk bi jox ko Mawlaay Cheikh Ahmada Tidiane mu demee ko. muy ku gore ki ñuy defal bés bii. delloo na ay billet. waaw waaw delloo na ay billet. Mm-hmm. ndax ku ne xam na ne. Mm-hmm. yàlla daf leen di may. Mm-hmm. ba ñu xam lu lew ak lu lewul. xam lu baax ak lu baaxul. ca billet boobu. ca la demee ziyaara ji maamam rasulilah sa alayhi wa sallam. ñu ngi leen di xaasal nuyoo di woo waa guddee mi. Euh, sëñ Mouhamadul Fadal Guèye. di woo ñëpp. ci kër sëriñ si loolu nag ci la ñuy wàcc nag di woo xalifa général de Tijani yi comme ni ko ñëpp di waxee muy sëriñ Babacar Si Mahamadul Mansour nga xamante ne la waxkat ba waxoon ne noppi dafa am sékkëri su rëy su si nekk kenn mësut koo am ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu sallam sallallahu sallam moom rek moo am sékkëri su nga xam ne am na ko judduwaaleeg moom saa noppi moom yonent sa sallallahu kooku nag ñëpp rafet njort ci mm. noppeem gu rëy gu rafet gii mm. ñu ngi koy woo ci bés bi mm. di ko ñaanal yàlla may ko wér guddal fanam di woo euh, cheikh mahamadul muntaqa mbàkke xalifatul cheikh sidi ahmadou bamba xadimul moustapha radiallahu taala anhu ci mbaaxam ak tabeem ak yiwam ak sellam ci bési mawlaay cheikh chamada tijani yi ni ñu ko daan defee ci ñoom ñëpp seen njaboot gi daan teew sëriñ bi nee na mu ngi koy sàkku ci ñoom ba jon si yàlla tey noonu la ñuy wooyee euh, suñ bàyyi sëriñ Maahi di xalifa suñ bàyyi cheikh alhaaji Ibrahima Niass tabaarakallaahu di gërëm mbooleem njabootam gi foofa ak nu ñu daan teewee waaye di ci xaasal zakir bu mag ba muy cheikh alhaaji Ibrahima ndaw nga xamante ne mooy tuddukati yàlla bu mag ba ca barab ba ñoo fa daan bokk di nekk ñoo àndoon tamit bayti laahil xaraam ñu ngi koy ziar di woo waa ba marsaasu Cheikh Mahamadul Moustapha Sylla waa Casamance yi Thierno Abdourahmane Bari Boggal di woo ñëpp fàttewuñ kenn di woo waa Madina Salaam yi ci njiitale xalifa alxaaji Ahmad ak xalifa Cheikh Sidi Hadji Serigne ibnu Cheikh Mahamadul Xayri ak kële di Chib ibnu Cheikh Mahamadul Fadal di woo waa Njaay Kundaa yi di woo waa Ndemeen ca xalifa ba alxaaji Cheikh Omar Dem ci seen yitte bu rëy ba. Mm-hmm. ak Cheikh Al Hadj Dem. Mm-hmm. ak seen i njaboot yëpp. Mm-hmm. di woo waa kër sëñ moo sëñ sëñ Mansour Ndiaye misra Alaaji Aliou Ndiaye euh, tabaarakallaahu ca mbaaxam nga di ci jàllale waale yi ni bisam ba le 24 décembre la ñëpp bàyyi ko xel tabaarakallaahu di woo euh, waa kër sëñ Modou Mbacke Diallo Touba Saïd di woo njaboot gi yëpp alxaaji ahmad ak ay rakkam di woo tabaarakallaahu mboolem fu sëriñ nekk ak muqaddam waa kër sëñ Basir Seck yi waa kër si naa leen sekk yëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk euh, alhamdulilah di woo waa Koxeel yi ndemeen nga fa nekk di ci jaar ci Cerno Ismaïl dem nga xamante ne moom yàlla mayoon na ko mu géntoon wax gaa yi ne tey dama gént la xewoon ci dëj suñ bàyyi alxaaji Abdul Aziz si da baax nii la ko waxee gars yi tey dama gént mu xew ñu ne ah mooy dama gént kilifa gu mag wàcc liggéey asamaan si niis mu ko wax gars yi boori 10 heures midi mhm. mu gis asamaan si niis mhm. am ko jóge koo ca boori Madina Sabax mhm. ne leen de Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Haydara moo wàcc liggéey léegi ñu ngi ci woo waa Madina Sabax yi waa postu Kër Ayib bi ak dëkk yi ñu wër yëpp tabaarakallaahu mboolem kilifa diine bu ñu tuddut xel mi moo fatt ndax mat yàlla rek la ñeel alkamaalu lillahi wahdahu waxkat ba waxin ne laysa alkamaalu illa allah waaye ñu ngi woo ñëpp fàttewuñ kenn tabaarakallaahu bés baa ngi noonu ñu ngi ciy sàkku seen ñaan ak seen teewaay incha allahu taala ci ndigali xalifa bi Cheikh Sadul Abi ibnu Mawlaay Cheikh Chamara Tidiane ca nga ak yaatoom nga ak yiwam nga waaye ci loxo silaaxu diin nga muy shérif Cheikh Mahamadul Hattab suma sëriñ di ko ziyaar asalaamaaleykum ci léegi ma doon laaj mu ngoog woote baa ngoog kàddu gi benn la kàddu woote la bés la ban sëñ njabootu yonente toog gis nii nekk sët ci yenent bi way juróom nekk sëriñ Cheikh sëriñ euh, Cheikh Tidiane ay dara sëriñ fële ca Farafeñe ñoom la ñuy wooteel bés incha allahu rabbi le 25 novembre bii la ñuy ubbi kaamil le 25 décembre lañ koy jeexale fële ca Farafeñe képp koo xam ne dégg nga kàddu gi rek woo nañ la moo xam tudd nañ ci tur wala tudd nañ ci tur képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bisu alquran boobu wax kër yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko wootee képp ku bëgg jëriñu nag dawal ñëw dem ci bés ba insha allahu rabbi bu la ko kenn nettali ndax koo xamante nii moo tax ñu bind la njabootam toog woote bisu alquran bis la boo xamante ni julliti yàlla yépp ñoo ko moom moo xam murit nga moo xam tijaan nga moo xam xaadir la moo xam laay nga yéen ñépp ñu ngi leen ci woo le 25 décembre fële ca Farafeñe insha allahu bi di leen ñaanal jàmm képp koo xamante ni bëgg nga ñëw yàlla na yàlla may la wér goo ñëwee may la doole poos may la imaan goo ñëwee ba loo fa ñëw ñaan ko fa yàlla nang ko bu fekkee bàkkaar nga fi indi yàlla génnee ko bu fekkee aajo nga fa indi aajo bu mënta am yàlla na ko yàlla faj Cheikh Mahamadul Moustapha ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaante Chérif Aïdara kanaa nga ñaanal seen seen bu mag bii di Farokh TV rek yàlla yokk ko ñu ngi ñaanal Farokh TV di ko mm-hmm. jaaree ci say daali ndem mm-hmm. mi nga xam tabaarakallaahu moo sàkk woon lii ci ñun euh, di ñaan yal na yàlla yëkkati ko ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa euh, barke borom bés bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan yi ak mbooleem sëriñam ak ay wasaa'ilam nga xamante ne ki ñu tuddee lii moom ci wasaa'ili sëriñ bi la bokk mm. ndax soo ne Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaan yi mm. alaaji sëriñ alaaji Omar Ndaw nga ciy teg mm. Eh, tabaarakallah ñu ngi koy ñaanal bu baax alhamdulillah mm-hmm. ñu ngi ñaanal Farokh TV di ñaanal mboolem ñëpp rek yal yàlla def jàmm ci réew mi yokk ñëpp def sutura def taranga def xéewal ci barkeen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye ñu ngi woo nag mboolem daaira boo xamante ne mm-hmm. eh, tabaarakallah yàlla def na nga bootu ci suñ gannaaw mm-hmm. ànd ak ñun ci liggéeyal yonent yàlla Muhammad ci këram gi ci njabootam bii di Mawlaay Cheikh Tidiane ñu ngi lay woo ci bés bi tabaarakallahu xam ne woo pas-pas la ak dogu ndax ñaar yi képp ku ko amul ci lépp looy dugg mun naa échec mun naa amit tabaarakallahu waru ca loola waaye képp ko am pas-pas am dogu ci lépp loo dugg rek boo ko buggee fas da nga ko fas boo ko bëggee fecc di ko mën a fecc yal na yàlla def xol yi tàppale leen ñu doon benn maa ngi ziyaare waat mboolem njabooti Cheikh Ahmed Tidiane yi di leen wax wa kullu amin wa antum bi xayr salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mami, ayúdame, yo no lo sola.